من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على فذلكة دفتر الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد alayhi afdalu salaati wa azka taslim wa ala alihi wa asxaabihi wa xulafaa'ihi wa man waalaa bokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi sant yàlla di leen santal yàlla di ñaan ngeen santal ñu yàlla ci yëg gi mu ñu yëgal ni war nañ ko sant gannaaw loolu ñu bokk ñun ñépp ñaan ko ci li mu ñu gën a xam te budul woon ak moom ñu réere ko ndax walaw laahu lam tadri alxaliqatu qadrahu bihi fataxa allahu alkunuuz albawaadiya budul woon ak yàlla xam ni yonent bi toll ci moom dana jafe waaye bu dul woon ak yonent bi xam li yàlla doon ci ñu it dana jafe kon ñu ngi koy ñaan mu bokk ñu wuutu ñun ñépp jullil ñu ci sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa te muy julli goo xam ni yàlla na bokk ci julli ya nga xam ni buy yegg ci moom des na ko màndargaal mu ànd ak adresse di fi teew tey ci ndigalu sunu sëriñ sunu murshid sunu muraqi al aarif billah mawlana cheikh sidi aboubacar si ibnu cheikh sayidi alxaaji mansour si ibnu cheikh sayidi alxaaji malik mu yëkkati ma nag dénkaane ma ci loxo baayam bu baax bi di sunu maam alxaaji tafsir saaxo ñu ñëwal ko fii ah ci mesure waaye tooge wu ñu ëmbam inna rasula bi qadril mursili waaye ndax ki fi toog la mu ëmb est-ce mooy la ki ko fi yabal ëmb kon ki ñu yabal fa laysa bi miqdaari cheikhihi muy bés nag bu sababu ci mag mu baax ñu koy wax alxaaji mbay Jóob ak mboolem ñi mu àndaloon ñu mel ni maam alxaaji jibril géey ak ñu ni mel daroon mawlaana cheikh seyd alxaaji malik ndax shaayir ba nee na ku yàlla tànn tànnal ko waaye ñu yàlla tànn tànnal leen di nuyu ci turu sëriñ bi njabootu maam alxaaji Mbay Jóob yépp te di jiital ci nuyoo bi Papa As Jóob mi nga xam ni tey ñi fi desandi yàlla na yàgg ci njabootu góor gi defe naa ni mooy seen doyen tey di ko nuyul jaraaf Momar géey mi nga xam ni caatam bu jigéen di soxna Fatimatu Diop moo ko jur mu ngi nii toog ci suñu wet di nuyu njabootu sang bi Guèye yépp Mouhamad Nabi Guèye di nuyu imam Babacar Diagne di nuyu mboolem aima yi nga xam ni ñi ngi bootu ci gannaawam di nuyu sunu baay alxaaji Malick Ndoye ak mboolem jamaaya wakaam yi nga xam ni yépp yàlla jël na seen responsabilité teg ko ci loxoom ak ci kàddu yu rafet yi nga xam ni jotal na ko fi yàlla na yàlla yokk sa sutura saxal sag bi barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu alxaaji yusufa Diop moom mi nga xam ni wat ca watit wa na maamam jeexale woon dundam yépp ci Cheikh Seydi El Hadji alxaaji yusufa jël na dundam yépp jeexal ko ci cheikh alxaaji mouhamadul mansour radiallahu anhu ci dund dundu taalibe ndax kër cheikh alxaaji malik duñ def kenn taalibe nawle lañuy def nit waaye taalibe nit a koy def boppam muy nag taalibe bu dëggu ndax as sidqu fa huwa zinatul niyatu muri niyatul muridi as-sidqu fa huwa yàlla bëgg na ko wax dëgg waaye li ngay mën a wax dëgg yépp dëggu ko ko gënal te lu nit dëggu dëggu dëgg dab la taxawuloo weddi nga sa bopp sa diggante ak sa te yooyu yépp dalu ko mu jeexal ko ci digganteem ak sëriñ bi jeexalin wu rafet ci dundin wu rafet ci dund wu teey ba pare nag dellu bokk ci njaboot gi kon la mu ca def lépp yal na ko yàlla yégal ci liggéeyu maamam di nuyu xaja Zeynabu Lo di présidentu Ahmadiya ak ñi ci gannaawam ñépp di nuyu sunu baay di alxaaji Maodo Malick Cissé bu sunu maam alxaaji Ahmadou Cissé Pire yal na yàlla guddal sa fan lii lépp sag la Pire ak fii sori na waaye jar na ko ndax pap alxaaji Mbay radiyallahu anhu daf ma nettali nee na seydul qawmi dafa jóge Tiwaawan di seeti jigéenam maam Fatimatu Si bu Cheikh Seydil Xaaji Malick ca Tayba jigéen jooju moom la Maulana Cheikh Seydil Hadji Malick tuddee maam Fawade Wele waaye Cheikh Al Hadji Malick radiyallahu anhu bépp tur bu ñu wolofal bu daagu ci këram rek soppi na la maam Fatimatu si bu sunu maam Sayida Roqiyatu Njaay radiyallahu anha la tuddee Fatimatu Zahra bii maam tafsir doon waxtaane sànq maam fatimatu si boobu bi ko maam Cheikh Alxaaji Malick di yàpp pour mu dem këram daf ko tëralal ay condition bis bi mu waree dem dafa tëjoog moom ci nekk mel na sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama ni sunu maam tafsir waxee sànq bi muy paree def intiqaal ila rahmati rabbihi woo doomam jooju saydatuna fatima az-zahra am ay kalimaat yum koy dénk maam cheikh alxaaj malik radiallahu anhu te jóg sunu maam fatima ne ko fatima dafa mel na de tey ngay dem sa kër mu ni ko waaw mu ni ko ah doom man de am na lu ma la bëggoon a dénk mu ne ko waaw bàyyi mu ne ko bëgg naa foo nekk ñépp xam ni maa la jur loolu daal bëggoon naa nga bàyyil ma ko xel tàllalal ñu ñaan ñu ñaan ñu gunge ko ba ca gaar ba Cheikh Seydil Hadji Malick dab lu wat ko ba mu dellusi mu ne ko doom nga baal ma waxuma ci tur ci ko laa wax ko baax na mu dellu ba ca gaar ba mu dab luwaat ko ni ko Fatima woote yaa ngi bëgg a bari waaye nga baax ma mbir bu ko ñaar seqi te lu xew ca mbir ma ñu jiñ ko kenn ki kañ koy jiñ war na bàyyi xel boppam baax na mën nga yeewi ko ba mu yeggee ca gaar ba mu dab luwaat ko bi mu dellusee mu ni ko doom saxaar si ngay bëgg a jël ma ngi lay wàcce kel waaye maa ngi lay ñaan xam naa sax dafa fekk fasu naaru góor yu lay teeru waaye boo wàccee bu ca war benn nanga sax ci sa salaatul faatixi ba dugg ci sa néeg Cheikh Al Hadj Malick ku sunniyu la ku tënku ci sharia la tey gor gore boobu mi ngi dawal doomam xasu ëllëg ndax fas ya koy teeru ña ko war a wommat ñépp kenn dencu ci Faatumatu si nga ni togg ci kaw fasu ku la denc ba dugg sa néegu jëkkër bu boobaa Maodo yëg na ni am na jam-jamu sharia mu ni ko bu ca war benn mooy li ko daloon keroog bi góor gi Abdullahi Ndour faatoo fii te mu yeble ñu jaale ji ko ci gàttal bañ ko nee ni Abdullahi Ndour toll ci yow mu génn àdduna ñépp xamee la ko moom la góor gi Momar wax léegi ne na Cheikh Seydil Hadji Malick daan na jóge Ndakaaru doxe ba Wakaam te buy génn nit ñi duñ ko yëg ñàkkul mu daan jóge foofu ca ministère de l'intérieur ñu ni ko lu tax doo jaale ji góor gi mu ne Abdullahi Ndour faatu na te dem fi dakaar dellu si Tiwaawan yombul te jigéen la fa bàyyi waaw jigéen ju ñu bàyyi gannaaw Maodo di fanaan ci kër ak jigéen ju mu dencul nu ko sharia di àtte bi ci des mooy gor du dal di daldi te bu ma ko jaale jee aw ma feneen fu ma fanaan ni bu ma demee feneen dalli naa te ngor ko kooku nag la ñoom Mame Mbaye amaloon affaire mag ñooñu nag magu sunu baay bii alxaaji Malick Cissé Maodo ca la bokkoon muy góor gi alxaaji Ahmadou Cissé Pire yal na yàlla yokk sa sutura di nuyu maam Mousse Ndoye di nuyu Jibril Ndoye di meeru dëkk bi di ñaanal yàlla itam goroom bi nga xam ni taxawaay bi bu mosaan ñëw daan ci am taxawaay yu am solo yal na ko yàlla yokk leer fa mu tëdd te barkeel njabootam bi barakati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam di nuyu musaa Touré bi fi teewoon sànq di nuyu mboolem politiciens yi fi teew ak ki nga xam ni nag moom moo fi wuutu tey Diop si di Demba Diop di Mabousso Thiam suñu papa alxaaji Mansour Mbaye gindi ñu ci ñun ñëpp indiwaat démb waxtaan ci diggante Cheikh Seydul Hadji malik ak seeni maam Pape Mansour yàlla na la yàlla fay yàlla na yàlla yokk sa sutura yàlla na yàlla yokk sa sag yàlla na la yàlla bàyyeeg sa xel yàlla na la Cheikh Alhaji kiraayal Cheikh Alhaji Mansour yiir na yonent bi sallallahu alayhi wa sallama tee woon Mouhamadul Busayri ba mu koy kañ ndax boobu yaramam am na lu ci feeñ lu ko jaaxal ba dem ba genn wàllu yaram wi di lekku mu seet ñi seen xam-xam màcc ci médecine traditionnelle yàlla dogalul mu amee ci wér mu seet ñi seen xam-xam màcc ci médecine moderne yàlla dogal amee ca wér mu ni yàlla benn wéeruwaayu fi des mooy ki nga xam ni jëmmam a tax nga sàkk ma xanaa ma jaar ci moom ba xam yàlla ubbi dënn bi lu ma sama bàyyi wax démb ma ni ko nag ma ñaanal ma nekk shaa'ir mufliq mu ni ma mawhiba la mawhiba la waaw nag ma nag ma ñaanal ma nekk ku mën a way mu ni ma Habib way mayu yàlla la waaw fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin waaw mu ne ma way mayu yàlla la waaw colonel Wane ñu ngi koy nuyu ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara bi mu dalee imaamul Busayri yu yàlla ubbi dënn bi rek bët suuf bi mu commencé di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillahi munshil xalq min adamin te moom ca la bokk mazajta damaan jara min muqlatin bi dami topp ko topp ko topp ko ba fa mablagul ilmi fiihi annahu basharun man de pexe jeex na li ma doon yëg yëgatuma ko waaye xam naa ni ki may waxal daal nit rek la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ñoxeet xëcc ko ba mu dëgër ne ko mottalil way wi mu ni ko inni lam uwaffiq lil misraa athani lii mottali bayit bi day teewul ci sama xel yonent bi tey bopp bi ba mu dëgër ubbi mantu bi ba mu yaatu mu ñuux ko ci biir ne ko wa annahu xayru xalqillaahi kullihim googu ñu ubbi doon loolu moo tax imaamul Busayri yu dugal gi ko yonent bi dugal ci manto bi moo tax ñu tuddee ko alburdatu denc googu nag Pape Mansour yal na la ko yàlla denc ci biir mayu Cheikh Seydi di nuyu colonel Wan di nuyu ñi fi teew ñépp di nuyu góor di nuyu jigéen di nuyu mag di nuyu ndaw di ndokkeel suñu njabootu maam kër Moussa Ale Mbaye ñoom ak kër Cheikh Seydil Hadj Malick rek du guddi du bëccëg du suba du ngoon am na leen yàlla fay Abdoul Aziz te barkeel leen waaw di nuyu alxaaji Madina di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla li sëriñ bi yéene ci moom te bëggal ko ko ci wàllu yàlla yal na la ko yàlla defal di barakati rasulillahi sallallahu alayhi di beral cant ak ngërëm ak nuyoona sunu maam alxaaji tafsir sunu maam alxaaji yëkku gétt gi mooy yëkku gétt gi yaay sàmm gétt gi waaye yow mi koy sàmmit yàlla nañ la yàlla sàmmal bi barakati rasulillahi sallallahu alayhi yàlla bu ñu reen réeree yàlla bu ñu yéen ci xalaat yàlla bu ñu yéen ci yëg-yëg yàlla bu ñu juyook yéen ci jëf yàlla nañ ko yàlla bokk defal sëriñ Babacar Mansour leen di nuyu yaram wu sutante moo ko jàpp mu nekkoon di faju faj wa nag xaw a jël temps tuuti mu am fuñ ko ni na fa tëddandi xaar ndax yaramam waaye jéem na ba tàyyi moom kenn du ko layal waaye lum la santit boo yaboo rekk wax ko ndax loo ko waxal lu dul loola fa nga ko waxee fa la koy dindee ñu leen di nuyu di leen ñaanal yàlla sànq li ñu toog fii yépp mooy woote li ñu toog fii yépp mooy woote waaw ndax responsabilité bi mu xam ak yëfu mag ñi ci lay delluwaat ñàmbaas ko ci Cheikh Al Hadj bi muy seeti maam Fatimatu Si Pape Al Hadj Mbaye nee na ma. ca tukki boobu dañoo ñëw ba ci buntu kër maam Alioune Tall biñ doon tuddee maa bëgg Maodo mooy maamu Abdoul Aziz Tall bi nekk ci Macky sàll ak ñoom xalifa nee na mu ni góor gi alxaaji Mbay wàccal nga nuyul ma góor gi nga ni ko maa ngi koy ziyaara romb gi laay bañ a layoog gi laay bañ a layoo ak Cheikh Seydi alxaaji Malick maa ngi koy yëgal ni ci soxna Fatimatu laa jëm Pape Alxaaji Mbay nee na naka laa yegsi ci ëtt bi rek mu ni jàkk xool ma ne ma yow de Tiwaawan nga jóge ma ni ko waaw mu ni ma lu xew ma ni ko Cheikh Alxaaji Mansour laa àndal mu ngi ci biti mu ni lu mu wax mu ni nee na mi ngi lay ziyaara di xamal ni dafay seeti soxna Fatimatu si te romb gi lay bañ a lekk Cheikh Alxaaji Malick mu bëgg rek nga yëg ko rek góor gi dog sàkkit wi ca gannaaw wanagam dem lu tollook ñaari waxtu dara yënguwul alxaaji Mansour ne nañ nañu seet alxaaji Mbay lu ko téye ci kër gi mu génn ne ko ah man de góor gi dama ko wax yóbbante bi mu xëtt sàkkit wi dem tuuti rek góor gi Alioune Tall si ak dëkk bi yépp ne ko Mouhamadul Mansour xaw ma romb xaw ma seeti soxna Faat si wàcc fanaan wala ma dee léegi nga fanaan dëj ma ah. wàcc fanaan wala ma dee léegi te bu ma dee daa fanaan fii rob ma alxaaji Mansour wàcc responsabilité yooyu moo waral kilifa yi bu ñu yebalee ci barab du ñu xam ñoom ci lu ñu toog ndax ñu suñu yitte yépp mooy lu ñu lekk lu ñu naan ñoom nag seen yitte yépp mooy ëllëg ci kanamu yàlla lu ñuy wax mag ñi ah, di sant nag bu baax hmm. Jóob njaboot la waaye njaboot gu nangoo sonn ci kër Cheikh Seydil Hadji Malick la lu ci Pape Mansour wax rek doy na sëkk seede ak yeneen ak yeneen yu baree baree bare bare ci fu mu féete xadara bi yépp te amu ci nag kenn ku muy cof ñépp la ñaaj bu ñëwee tiwaawan doo xam sax lu mu doon ma bu sa yow it mi mu tànn yónni la fii mooy yónni na fi ku fi bokk yónni na fi ku fi am place alhamdulillah bi tànn bi dalee ci yow yal la yàlla fay di sant nag sunu sëriñ ñun ñépp muy Chérif Cheikh Tourate li tax ñu mujjee ci moom ndax mooy xer way dar sàkket bi da cay sës nag yal na la yàlla fay am nga bàkk nag dëgg la bu fekkee da ngay toog ñu lay woyal sa maam hmm. te ña yaakaar sa maam génne la ñu yaakaar di la ko jox bu ëllëgee sa maam dana la poñe ne la am na loo xam ni ku la ko defal bu ëllëgee war na la laaj loo war a def te ni nga koy doxalee nag noonu la war a demee <laughs> senegal day dëkku teraanga. xam ko mën ko nag yombul. xam ko ak mën ko yombul daa gis ku xam teraanga waaye mënu ko bala nga koy mën danga koy teg fa mu war a tegu waaw na la yàlla fay yàlla suturaal la luñ fi war a wax yépp Pape Alxaaji Tafsir wax na ko te ndénkaane mag xale du ca teg dara lu dul topp ca te dégg nañ la déglu nañ la ndénkaane mag xale du ca teg dara lu dul topp ca li nga fi dénkaane yépp nag yéen mag ñi mucc ngeen ci wax naa la sànq bi may doog ñëw yéen xam ngeen ci lu ngeen ne ndax daje ngeen ak ña ngeen war a daje ña leen war a ñaanal ñaanal nañu leen ña leen war a déey déey nañu leen sama papa alxaaji Mansour Mbay bi wax na ma miraaran ne ma keroog bi alxaaji Moustapha Mbàkke rahmatullahi alayhi faatoo ñu tagge ko cheikhul xawmi ca kër paate xewe moo ko wool boppam ak góor gi sàmba jabare ne leen yéen kontaan naa ci yéen moom ci boppam moo ni moom kontaan na ci yéen waaw lu ngeen xam ci kontaan nekk nitu yàlla ak njabootam kon kii ku ko xool di ko mere sa affaire la ñoom xam nañ ci lu ñu ne ba noppi ñun nag ñoo xamagul ci lu ñu ne di sant njabootu góor gi alxaaji Malick Diop ak daara ji yépp Mamor jiite ko ñoom Omar njaay fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin ak xale yépp bi ma sëriñ bi di jox ndigal ma ñëw fii dafa mel ne ku teg ci sama loxo furno tàbbal ca benn xal ba pare ne ma boyal ko waaw ma jéem a seet nu ma ko ubbee waaye wantaay tëma ma def tawassul ci barke mag ñi yàlla dimbale ma ci Cheikh Seydi Aboubacar Sy waaw moo ma jox wantaay bi ma ubbee ah fourneau bi ba mu boy wantaayu ñaari nopp la nag waaw moom lay bëgg a wax nii benn bi ci ku ñu tuddee bés bi benn bi ci ki waral bés bi ki ko tuddee mooy alxaaj mbay jóob mu ni ataana alxaaj mbay jóobul wakaami wa maskanuhu lada naxwil ikaami muridan bisalaami axi alayna yazuuru daara maa tiibil kalaami abuna al akramu al mahmudu fiina xafiidu al ahdi dul xuluqul kiraami gannaaw Cheikh Seydi El Hadji Malick nee na ataana alxaaju mbay joobul wakaami wa maskanuhu lada naxwi likaami la ko taxoon a jóg nag ñëw nemmeeku njabootu Cheikh Seydil Hadji Malick yazuuru daara ñun ci ñun fii ci njabootu Cheikh Al Hadji Malick xafidul ahdi ngir nëmma mottali kóllëre zul xuluqul kiraami ànd ak jikko ju yàlla gërëm beneen bi dañu bay jagsaaw ba noppi alxaaji Malick Diop ànd ak mbooloo mi jóge wakaam ak seeni yóbbante ak seeni jën indi ca tool ya togg ñu bay ko ba mbay ma sotti Cheikh Seydi Aboubacar si teewe ko mu ñëw di ko tàggu pour mu ñaanal mbooloo mi ñu yewwee mu ni atal xajju mbay joobu atal xajjub nu mbay joobu lil widaayi wa bil ahliina yarjicu lil mataayi fa qultu lahu fa balligh salaami ila maggat li baxrin da tibaaci wala tansal wafiya xabiba sidqin aba bakrin wa ndaxte fi ttisaaci Est-ce que ataa alxaaj jubnu mbay jóobu lil widaayi mbay mi sotti na lépp rafet na waaye alxaaji doomu alxaaji mbay jóob ndax sa tey doom bu góor ànd ak njaboot gi ak bagage yi ñu indi woon yépp ci tool bi ngir tàggatook ñun waaye maa ngi koy yóbbante nan ko fa qultu lahu fa balligh salaami nuyul ma màggat ak jën ya mu dajale woon yépp joxe ko ci ndëlu tool yi euh. li baxrin da tibaayi wala tansa bul fàtte alwafiya xabiba sidqin aba bakrin wa ndaxtey fittisaayi kii mooy ki ñu parrainé bés bi kii mooy ki ko jur te lii defe naa ni ba ko mag ñuy bind ñun xale yi fi desandi tey kenn ci ñun ganewul àdduna lii la mag ñi daan jokkalante lii moo ràbboon diggante mag ñi fi may tëjee wax ci nag mooy ñent yi nga xam ni moo ñu tënk te jataay bi génn ko te bu alxaaji Mbay Jóob dellu si waatoon fii bala koy jataay bee faw mu contrôler ñent yi mooy diine ji nga xam ne alalu yàlla la mu liggéey ko ba wakaam tàkk te mu ànd kook nawleem di Cheikh Seydul Xaaji Malick sama gannaaw yéen ñi ma fi bàyyi nu ngeen ko doxalee ndax inna diina inda allahi islaam muy benn bi ko ñaareel mooy tariqa bi nga xam ni moom la ñu def ak Cheikh Sidi Ahmed al Tijaani mu baayaa taal jàkke ba ñu takk ñu tàllal mbalaanu wasifa fay di ko seq te boobu mbooloo mi tel tolluwul nii ba jàmm sax fi ngor sax fi fit sax fi te dof ju doowu fi tariqa boobu nu ngeen ko doxalee sunu gannaaw bi ko ñetteel mooy bokk gi nga xam ni alalu yàlla la ndax wattaqu llah alladi tasaaluuna bihi wal arxaama inna allaha kaana aleykum raqiba bokk di alalu yàlla jenn jëmm bu ci fukki tur desee te la nga tudd mënoo ko caa génne la nga tudd am na doole jenn jëm hmm. bu ci fukki tur dajee te la nga cay tudd mënoo ko caa génne la cay tudd am na doole ndax bu bàyyi Pape Tafsir toogee ah, ah, doomam bu toogee nga ni ko kii sa lana mu ni sama baay doomu doomam nga ni ko kii sa lana mu ni sama maam doomu rakkam nga ni ko kii sa lana mu ni sama nijaay rakkam bu góor toog nga ne ko kii sa lan la mu ni sama mag maam la baay la nijaay la rakk la loolooy ak bokk moo tax yàlla ne maa koy contrôler bokk googu nag lu cay néegu ndey dundal naa ko lu cay néegu baay dundal naa ko xam nga luy adresse bi fii kuñ fi réere koo jox loxo ne ko sëtu maam Mbay Jóob laa mu téyewaat la waaw ah. mbokk googu nu ngeen ko toppatoowee sama gannaaw bi ko ñeenteel mooy wëllëre yi ndax léeg-léeg nga gis koo bokkal ndey ak bàyyi ci ëtt nga làmb tur wi doo ko fekk ci sa néegu ndey doo ko fekk ci sa néegu bàyyi nga yëg ni mottali wëllëre moo fi indi tur wi kon wëllëre woowu nu ngeen ko sàmmee yii ñeent mooy tax ñu apt te ëllëg moom lañu mag ñi di xaare bu diine ji doxee tariqa bi dox mbokk gi dox kóllëre gi sàmm sutura am sak am insha allah amiin bu ñeent yi doxul nag lu waaye tënku sa chutan ci kanam di la xaar waaye yàlla na jël ba rafet fi may tëjee sama wax nag mooy hmm. lépp lu ñuy tànq waaw ñuy tànk waaw ngi koy natt ci litre lépp lu ñuy yëkkati mm-hmm. ñu ngi koy natt ci kilo mm-hmm. lépp lu ñuy tàllal ci yaatuwaay mm-hmm. walla ci guddaay walla ci taxawaay ñu ngi koy natt ci mètre waaw ki xayma yooyu yëpp ba mën koy évaluer ci lan la war a nattu boppam loolu mooy question bi may bàyyi wakaam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala xool leen ni mbooloo mi toll. nee na xool leen ni mbooloo mi toll. Habib di wax. sëñ Habib di picc sax naawul. picc sax naawul. loolu. nee na loolu. ku am seetlu. ku am seetlu. xam ni kii. xam mooy doomu Seydi Boubacar. mooy doomu Seydi Aboubacar. di doomu sëtu El Hadj Mansour. di sëtu El Hadj Mansour. di sëtu Cheikh Seydi El Hadj Malick. di sëtu Cheikh El Hadj Malick waaw. Seydi Boubacar. mooy Seydi Aboubacar. xalifa bu tedd ba. xalifa bu tedd ba. Cheikh Tidiane Sy. mu ne Cheikh Tidiane Sy. El Maktoum. El Maktoum. ak Seydi Mansour sunu mag ja. ak Seydi Mouhamadou Mansour sunu mag ja. du nu jàng ci moom. dañoo dañoo jàng ci moom. tëral tëral. dem. dem ca sëriñ Seybatu ca sëriñ Seybatu Fall tëral tëral dem dem ca sëriñ Aliou Guèye ca sëriñ Aliou Guèye tëral tëral dellu si waat nag dellu si waat nag ci Sidi Boubacar ci mu na ngeen def mu ne leen waaw yéen na ngeen def dafa soppoon Seydi Mansour dafa soppoon nag Seydi Mouhamadou Mansour Cheikh ni ko mu ne sëriñ Cheikh ne ko ah ñu ne li li ñu waroon yëpp def nañ ko ñu ne papa li ñu waroon def nañ ko mu ne ko des mu ne ko des na ëllëg a ñëw. ëllëg a ngi ci ëllëg dafa mat a préparé. te ëllëg nag dafa mat a préparé. Seydi Mansour. Seydi Mansour. mu ne si. ne si. Cheikh Ahmed Tijane. Cheikh Ahmed Tijane. mu ne si. mu ne si. mu ko doomu soxna. mu ne ko doomu soxna. ñaar la ñu koy nawe. ñaar la ñu koy nawe. ba ñett. ba ñett. benn bi. benn bi. mooy xam mooy xam-xam. bi ci bi ci des. mooy mbubb rafet. mooy mu rafet. bi ci des. bi ci des. mooy maandu. mooy maandu. waaye bis bu la laajee rek ci yàlla. waaye bis bu la laajee ci yàlla. ak ci rasulullah. ak rasulullah. ca xamoo ca dara. ca xamoo ca dara. mbubb ma tilim la ca yàlla. mbubb ma tilim la ca yàlla. tilim la ca rasulullahi. tilim ca rasulullahi. tilim la ca ña la woowoon. tilim na mbubb ma. dalu si. waaye wallaahi si. loolu dalu la. sànq ba tey sànq ba léegi maa ngi bëgg a ñibbi. ndax at yee ma ko mayetul. ndax nag at yee ma ko mayetul. waaye dama doon seet. waaye dama doon seet. ndax mag day seet. ndax mag nag day seet. bi ngay wax. bi ngay wax. picc sax naawul. picc sax bi ngay wax. bi ngay wax. kenn deeyaatiwul. kenn deeyaatiwul. lu war a loolu. lu waral loolu. li nga leen wax. li nga leen wax. moo dugg seen xol. moo dugg seeni xol. ak ñu seet la. ak ñu seet la. xool la. xool la. xoolaale la. xoolaale la. ngir Sidi Boubacar. ngir Sidi Boubacar sa wéy. waaw. kon si. kon yàlla guddal sa fan. yàlla guddal sa fan. la wóolu. ki la wóolu. di sa baay. tax mu wóolu tax mu wóolu réew mi yëpp. réew mi yëpp. d'accord nunu ni. du wax lu mu gëmul. du wax lu mu gëmul. ànd nañu ci ñaari président. mu ne ànd nañ ñoom ñaar ci ñaari président. Abdou Diouf ni ko. Abdou ne ko. Seydi Boubacar. Seydi Boubacar. yow noo bokk yaru. mu ne ko yow ñoo bokk yaru. ca ndar ca ndar. te lee ma dégg. te lee dégg. ni. ni. am na loo wax. am na loo wax. mu ne ko loo dégg. mu ne ko si loo dégg Abdou Diouf. ni maa ko wax. ni maa ko wax. nu nettali la ko. mu nettali la ko. maa ko wax maa ko wax ci dëggu ndax li ma a bëggal. ndax li ma a bëggal. mooy. mooy. nga xam ni réew mi nga xam ni réew mii. moomoo ko. moomoo ko. Senghor moomu ko. Senghor moomu ko. keneen moomu ko. keneen moomu ki ko moom. mooy yàlla. mooy yàlla. man nag. man nag. yaa ngi ci lii. yaa ngi ci lii. man maa ngi ca la sama baay. man maa ngi ca la sama baay nekkoon. Allahu ci des. bi ci des. Ablaye Wade ko jox rendez-vous. Ablaye Wade moo ko jox rendez-vous. mu ne Cheikh Tidiane si ministre. mu ne Cheikh Tidiane si ministre. jël si ma. jël si ma. waaye Mansour Mbaye may indi. waaye nag xaji Mansour Mbaye mii moo may andi. su ma ñëwee nag. su ma ñëwee nag. ca salle d'audience ba. ca salle d'audience ba. ndax nee nañu président buur la. ndax nee nañu président buur la. ca Ablaye Wade buur la. ca Ablaye Wade buur la. bu ma téye une heure bu ma téye une heure bu ma fa amee vingt minutes. bu ma fa amee vingt minutes. danaa dem danaa dem na. Cheikh ni ko doo ko am. mu ne Cheikh ne ko billahi si doo ko am. ñu ànd. ñu ànd. man. mu ne moom. moom. moom. Cheikh teeru mi. Cheikh ni tuuti. ni tuuti rek. muy seet montre muy xool montre ba rek si. ma tiit lool. nee na moom mii mu tiit lool. ndax xam chef d'état ndax xam chef d'état. léegi mu ne nii. léegi mu ne nii. ni nii. ni nii. waaye yàlla def. waaye yàlla def. mi xam ni. mi xam ni. mooy buur. mooy buur. 15 minutes. 15 minutes. huissier ba ñëw. huissier ba ñëw. ne ko la président Oussata. ne ko Ablaye Wade yow lay xaar président. mun ma jógalu dem. mu ne ko jógal ñu dem. ma ne ko man. mu ne ko man. joxuñu ma audience. joxuñu ma audience. yow laa gunge. yow laa gunge. demal sa audience demal sa audience. mu dem ci audience ba. mu dem ci audience ba. mu ne ko man miinuma la. mu ne ko man miinuma la. Cheikh Ahmed Tidiane laa xam. Cheikh Ahmed Tidiane si laa xam. Serigne Mansour laa xam. Serigne Mansour laa xam. Junior laa xam. Junior laa xam. mu ko wax nga samay kilifa de. mu wax nga samay kilifa de. waaye. waaye. man de miin naa la. waaye man de naa la. ndax réew ñu la ndax réew mi la woo ma ci dara. ëppale woo ma ci lu dul ay carte rek. ndare ay carte rek. may sàmm diine. may sàmm diine. ngay sàmm état. ngay sàmm état. loo dégg. loo dégg. ci diine ji. ci diine ji. ni maa ko wax. ni maa ko wax. te loolu. te loolu. neex yàlla. neex yàlla. neex rasulullah. neex rasulullah. neex Cheikh Ahmad Tijaan Chérif. mbana man maa ko wax. leneen loo dégg. leneen loo dégg nag. du man nag du man

ak waa kër Moussa Allé. ak waa kër ma Moussa Allé. ak kër Daaw Góor. ak kër Daaw Góor. du kenn. du kenn. ku dul Cheikh Sida ku dul sama Cheikh Al Hadj Malick. wallaahu jërëjëf. kon nag si. kon nag si. daañu rendre compte Sidi Boubacar. daañu rendre compte sa waajur. Sidi Aboubacar si. rusloo woonu de. wallaahi si rusloo woonu de. li wa ko am bëggoon. li wa ko am bëggoon. ci diine. ci diine. ci lislaam. ci lislaam. ci tariixa. ci tariixa. ci mbokk gi ci mbokk gi. lépp lépp. wax nga ko wax nga ko. moo tax. mu ne moo tax. waa Wakaam. waa Wakaam. ama nañ leen cant. ameel nañ leen cant. ameel leen gërëm. ameel leen gërëm. waaye nag. waaye nag. si Malick wane nga tey. si Malick wane nga tey. ni lu dul yàlla. ni lu dul yàlla rek. yàllaa ko gën yàllaa loolu mooy lan. loolu mooy lan. fi nga jëlee kaddu. fi nga jëlee kaddu. ak coow li bari woon. ak coow li bari woon. ñun ñëpp ñu ni teg. ñun ñëpp ñu ni teg. Youssou Diop du ma ko yëg. mu ne Youssou sax bu ko dompoon du ko yëg. waaye loolu El Hadj Malick la. waaye loolu sama am seen Hadj Malick la si. yal na yàlla guddal soo na yàlla guddal soo fan. yal na fi yàlla bàyyi. yal na la bu mu nekk sunu. yàlla bu mu daje. li ñu fi ñaan. li ñu fi ñaan. bëgg ko ñaan léegi. bëgg bëgg di ko ñaan léegi. bëgg ko ñaan léegi bëgg koo ñaan léegi waaw yàlla ko yàlla ay waay yàlla ko yàlla def yàlla tàppe xol yi yàlla tàppe xol yi comme na ko sunu baay ba comme na ko sunu baay ba sunu xarit ba sunu xarit ba sunu soppe sunu soppe ba ka xam ni ka xam ni yàlla gërëm na ko yàlla gërëm na ko yonent bi gërëm yonent bi gërëm na ko alxaaji Maalik gërëm ko maam Cheikh alxaaji Maalik gërëm ko Tijaan gërëm Cheikh na Tijaan Sirif gërëm ko rasulullahi gërëm rasulullahi gërëm ko mooy mooy borom borom yàlla yàlla tàppe yàlla tàppe xol yi mooy ka naan wax naan yàlla na yàlla tàppe xol ya di alaaji Abdou Aziz di alxaaji Abdou Aziz Malick Dabakh kon nag sëñ Habib kon nag sëñ Habib ñoo ngi lay gërëm ñoo ngi lay sant ñoo ngi lay sant ñoo ngi lay ñaanal yàlla waaye day waaye day ku xamul ku xamul xamoo lay waaye sa maam waaye sa maam <laughs> jërëjëf jërëjëf si <laughs> Alxaaji Mansour hey. Ramzou naaka zur naaka yaa Mansour yaa Salali labbéy maam Tamsir nee na maam Moor alaaji Mansour Mbay maam alxaaji Mansour Mbay dafa yàbbi sama lañ dafay yàbbi ab lañcam sëriñ Habib bii sëriñ Habib mii man la sëriñ bi booleel moom la ko sëriñ bi booleel daaw mu ne daaw maa représenté woon sëriñ bi représenté woon sëriñ bi ren bi yaramam diisee. ren bi yaramam diisee. mu ne ma damay yebal Serigne Habib. mu ne ko damay yebal Serigne Habib. ngeen ànd ci mission bi. ngeen ci mission ngir fonk gu mu fonk wakkaam. ngir fonk gu mu fonk wakkaam. ak fonk bi. ak fi ma waxee nag moo di. mu ne fi muy waxee nag moo di. ku fiy doomi soxna. ku fiy doomi soxna. te jaar ci daara. te jaar ci daara te xam luy jàng ak jàngale te xam luy jàng ak jàngale tey jii dey tey jii dey am nga bind bu bees am nga bind bu bees mu dellu ci alxaaji Mansour Mbaye waxoon mu dellu ci la li sunu baay alxaaji Mansour Mbaye waxoon soo waree xam soo waree xam xam rekk jekk ci xam doo nga jekk ci yow nag waaye waxtaanu tey wii. waaye waxtaanu tey wii. xam-xam yi nga feeñal. xam-xam yi nga fi feeñal. te yëg naa ne du loo pare. te it yëg na ni waxtaan moom préparé wuloo ko. ilham la rek. ilham maanaam lu la yàlla yekki walla rek. Hmm? fekk la fi nga toog. fekk la fi nga toog. nga wax ka fi nga wax ka fi nga toog. ngir sa barke way jur. ngir sa barke way jur. ak say maam ak say maam na man de siggi naa si. wallaay si. man de siggi naa ñëpp siggi nañu. ku fi toog tey doomi soxna. ku fi toog tey doomi soxna. siggi na siggi na. fi la sa jur yabalit. fi la sa waajur yabalit. ñi nga fekk si. ñi nga fekk si. bég nañu. bég nañu. siggi nañu siggi nañu. olof nag noon na. olof nag noon na. nag. nag. su wóoruwul woon béjjén ba. su wóoruwul woon béjjén ba. du ko xasanoo. du ko xasanoo xasanoo mooy wokkatu. waaye bés bii. waaye bés bii. ci wakaam gii ci wakaam gii. ci mbooloo mii ci mbooloo mii. sa baay tànn la sa baay tànn la. yabal la yabal la. wóolu la wóolu la. moo taxoon moo mu yabal la mu yabal la. lépp lu mu la wóoloo woon nag. lépp lu mu la wóoloo woon nag. def nga ko def nga ko si. ba def lu raw sunu njort. ba def lu raw sunu njort. yal na la yàlla yàggal yal na la yàlla eh, eh, yàgg yabal. yal na la yàgg yal na la yàgg yabal. te ngànt du tax. te ngànt nag du tax. feebar du tax. feebar du tax. da nga koy aw. da nga koy aw. ci yan bi ci yan bi. muy la déglu. mu di la déglu. ngay dem di ñëw. ngay dem di ñëw. yal na yàgg te sax yal na yàgg te sax. barke yonent bi barke yonent sallallahu alayhi wa sallam. Alhaji Mansour Mbaye. mu ne Baye Alhaji Mansour Mbaye. ñu ngi lay gërëm. yow moom dañu lay gërëm. ñu ngi lay ñaanal yàlla. ñu ngi lay ñaanal yàlla. wax nga dëgg. wax nga dëgg. kenn dafa nangootu la doon màgget. mu ne moom kenn. ko wutaloon ak màggat moom. waaye ci màggat yi nga bokk. waaye tabaarakalla yow moom màgg nga. da nga ko nanguwul nag. da waaye li nga fekke waaye macha allah li nga fekkee. ca mag ca mag ña. ba léegi ba léegi. te yàlla defal la sutura naaxuloo. te yàlla defal la la sutura yàlla boo naax mukk nag. ma ne yàlla defal sutura ba naaxoo. yàlla defal defal sutura te naaxoo. bàyyi la sa sago. bàyyi la ak te loolu yàlla na sax te yàgg. te loolu nag yàlla na sax lool te yàgg. da nga war nag. Hmm? danga war. da nga war. ut benn émission. ut benn émission. pour Alhaji Mansour mbay pour tudd tudd pour Alhaji Mansour Mbaye. mu jàngal réew mi. mu jàngal réew mi. ndaw ñi ndaw ñi. ba li fi nekkoon. ba li fi nekkoon. te baax te baax. ñu xam ñu wax ñu xam ko. jërëjëf si jërëjëf Sakho. sa xam-xam. mu ne Baye Mansour. damay wax ni Tamsir Sakho. maam maam Alhaji mbay Mbaye nee na. Baye Tamsir Sakho. dafa wax ni bàyyi tamsir yow loo bokkul moom bokkul ndax li ñu bokk mënuñu koo séddoo li ñu bokk lan la sunu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick dafa ñëw tëngéej dar këri suuf añ yi reer yi dañuy tegaloo te maam Cheikh Al Hadj Malick du lekk déedéet day laal rek maam Ilimaan Saaxo bàyyi maam Tafsir mii di denc sunu yaay ju wax guy sigi di denc sunu moo jur maam Ibou Saaxo mhm. alaaji Ilimaan Saaxo bàyyi tafsir maam Ilimaan Saaxo bàyyi maam tafsir mii woo sama pap woo papaam maam Ahmad Mbay Mawlo ne ko man dey ëmmat leen dong laa bëgg seet naa bool yi muy juróom fukki bool ak ñaar te man dama bëggoon te man dama bëggoon Seex Sidi Alxaaji Maalik Nguy Sigi Nguy mu jur maam Ibou Sakho toog gi muy togg bëggoon rek maam Cheikh xaaj Malick laal ci loxoom sam papa ne ko kenn mënu loolu man dong maa ko man allahu akbar mu ne ko waa amut nu ñuy def mu ne ko da ngay wuti piisu perkaal boole ca ceeb ceeb suukar ak dépense bu ma yónnee Tiwaawan bu tegoo sama loxo ba nga jox ma ko bu ëllëgee bool ba Seydi Alaaji Maalik di di laal boolu añ sunu yaay guy sigil la lay doon. loolu du santage. <laughs> sant ko Adama ak a yomb non du santage du santage daal di koy jox moo tax. mu ne maam Tamsir bàyyi alaaji Mansour nee na yéen da ngeen a bokk mbokk gu rëy mu ne yaayam mi jur maam Tafsir mii moo nekkoon ak maam Cheikh Seydil Hadji Malick di tàngal ndox nekk ci mbo ci wetu maam Safiyatu ñan mu ne waaye wax na Tafsir mii ni ko. Cheikh Sidi El Hadj Malick du ree. Cheikh Sidi El waaye su waxee rek. waaye su ba yenn saay. ba yenn saay. mu ne uuhu. maam Safetu moom danaan ah boo demee day maam Amar Mbaye Mbaroo fa nekk mu tax Sidi El xaw a muuñ. mu ne loolu moo ko booleeg maam Tafsir Sakho mii muy xaritam. di soppeem yàlla ko yàlla may gudd fan sëñ Abdou Aziz Mbaye mi mu koy wax sànq mu sëñ Abdou Aziz mii moom neena mooy baayam mooy nijaayam li maam alxaaji Abdou Aziz bañoon sëñ Abdou Aziz Mbaye mii daf ko bañ mooy par parloo jërëjëf dafa dem ci sunu waajur sëriñ Maodo si te génnagul de mi ngi soog a jóge France ñu am quatre heures de temps di waxtaan mu ne ko Mansour xaw ma lu xew ak lu sama baay defal Abdou Aziz Mbaye waaye kër Cheikh Seydi Hadji Malick Abdou Aziz Mbaye par rapport wala kenn moom nag Abdou Aziz lii mu mel ñàkk par parloom gii daf koo doon moo tax nag mu mel mu man lii mu man waaye yéen Abdou Aziz de yaakaar ngeen ni yéen réew nga fi dàq baat ah kay moo ci gën a mën a way déedéet de dafa ànd koo xam ni loo bëgg mën na la koo defal muy alxaaji Abdou Aziz Malick Dabakh wallaay dëgg la si mais foofu lay arrêté di gërëm nag xaaji Madina Mbuub mii kuy seet as gor kuy seet kuy jàpp te du bàyyi muy alxaaji Madina Mbuub mii toog na kenn xàmmewu ko ci mbooloo mi kii nag mooy Madina Mbuub yan ko yàlla may gudd fan ñëw bu ko am nag fii moom alxaaj Pape Mansour Mbaye waa Wakaam def nañ délégation dem këram seeti ko waxtaan ak moom waaye bu sawaree ñëw Wakaam nag Youssou Diop mu tëdd mi tax allahu akbar ndax day xaritam di soppeem ngir kan Cheikh Seydil Hadj Malick allahu akbar kon nag xaj Youssou Diop yàlla yàlla guddal sa fan allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim waaw nee na ñu ngi gërëm rajo yi tabaarakallaahu TFM ak Touba TV waaw astuyaa yi ñépp ñu ngi leen dee gërëm di nee na alhamdulilahi rabbil alamin li fi li fi sunu bàyyi alxaaji Mansour seede ak sunu wayjur xaaj taf si saaxo mu ne loolu moom laa xarwa ndax waa kër maam Cheikh Seydil Hadji Malick nii rek lañ war a mel mu ne ku day ni ñoom seen sëriñ Cheikh Saadu Abihi daf leen a tànn daf leen bëgg daf leen wóolu ndax dafa wax ci seen maam Cheikh Hadji Malick nee na madaarisuhu xayru madaaris yi kontaan tabaaraka alhamdulilahi rabbil alamin mu ne moom de mi ngi sant yàlla ndax waa kër maam Cheikh Alhaaj Malick yàlla daf koo xiir ci ñoom waaye moom bu demee Tiwaawan ci gàmmu bi paase ci tëju burtu bi moo ne moom sëriñ bi moo ko ubbil buntu bi ñu waxtaan ba ci yàgg fekk ñu fekk ko sunu ci ci maam Aminta Lansar mu ne Pape Serigne Mbaye Sy Mansour ne leen ñoom am nañu maam moo xam ni turam mooy Aminta Lansar te moom yaay muy tur mi tur kon moom ñëw na Tiwaawan muy néegu ndeyam jërëjëf Chérif alhamdulilahi rabbil alamin mu ne mi ngi ndokkee waa kër maam Mbaye di ñaan yàlla yàlla nañ yàlla may ñu yàgg bokk ak ñoom bis bii xam la léegi nag dañuy def ñaan maam Cheikh Al Hadj Malick gi Chérif tëj wala sëriñ bi tëj maam Tamsir euh, sëriñ bi nee na nga ñaan sëriñ bi ñu ngi lay seedeel nag nela la euh, Kastoor gépp ñëw nañu muy sunu daara ja ak sunu daayira ba macha allahu taala sunu yaay xaja Mariam Thiam nee nañ sëriñ xayib ne da ngeen ko baal de ndax fii ci ndakaaru ndax fii ci ndakaaru moom alal la fi diine alal moo fiy diine ci ñenn ñi de dara jaa fii kilifa dara lii ñuy wax nii yëpp lii ñuy wax nii lépp bu ñu bàyyiwul xel suñu bopp bu ñu bàyyiwul xel suñu bopp rek sunu ndab dana bëtt suñu ndab dana bëtt fu ñu ko yëgul mu ne moom yëf yi moom wax ji wax ji wax ji mooy mag ñu tedd ñii ñooy mag ñi ñooy yëf yi jërëjëf si maam Tamsir tàllal loxo yi mu ne ci ndigalu sëriñ bi astaghfirullah ñetti yoon nga jàng benn salaatul fatiha nga jàng fatihatul kitab salaatul fatiha bi hadiya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fatiha bi ñu jaamoo ko yàlla def tawassul nag ci way jur yi ak suñuy sëriñ ak maam Cheikh Alhaji Malick ba ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ko ñëpp jàll bismillah lu waaye bëgg rek na ko ci yéene mbooloo amin adim aleyna niamat al imaani min salbihi واختم بخير آخر الأعمال لكي ننال منتهى الكمال يا ربنا يا واسع النوال وخير مدعو وخير والي أسبل على الجميع منا عافية تدوم في الدارين خير عافية لكل ضر وسقام شافية لكل سوء وبلاء كافية لكل ضير وشرور نافية لكل خير وسرور صافية في الدين والنفوس والأبدان والمال والأزواج والولدان والصحب والإخوان والأهلين وكل من لنا ومن يلينا يا ربنا واغفر لوالدينا ولشيوخنا المجاهدين لجملة الإخوان والأحباب وافتح من الخيرات كل باب وابسط لنا الأرزاق في الحلال بلا تعسر ولا إقلال وزل لأهل المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم عزا وتكريما على التكريم واغفر لكل من إلينا أحسن وجازي عنا جزاء حسنا allahuma yaa mufattix al abwaabi wa yaa musabib al asbaabi wa yaa muqallib al quluubi wal absaari wa yaa dalil al mutaxayirin wa yaa giyaas al mustagiisin wa yaa mufarrij al maxzuunin agisnaa agisnaa agisnaa tawakkalnaa amiin yaa rabbanaa qadayta fa radaynaa fawwadnaa umuuranaa ilayk yaa razaaqu yaa fattaaxu yaa baasitu wa sallallahu alaa xayri xalqihi muhammadin wa aalihi wa saxbihi ajmaciin bi sirri allahumma salli alaa sayyidinaa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 شيخ سيدي أبو بكر نانا طالب الشيخ يا خذني يدا بايش رميه نعمة شيخ جان جعفر خذني يدا خذني يدا شيخ سيدي أبو بكر نانا خذني يدا دبا خمالي محمد لمن فتر زمان جاء أذني يدا